asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéenay safoo chaîne bii di Buzz Actu 221 ñu ngi bu baax ngeen abone aimé partage commentaire like ndax kat loolu dina nekk li nga xam ni saa su ne luñ daal di dumbali la. tey jii moom mi nga xam ni moo di Adji Sarr ginnaaw ni démb rek moo nekkoon jàkkaarloo ak kile di Ndeye Khady Ndiaye SWR ba tey docteur Alphousseynou Gueye ba jàpp capitaine Seydina Omar Touré ak lenn ci li nga xam ni ñoo di ay témoins yu teewoon foofu bu baax a baax moom nag Adji Sarr jamono guñ toll nii belli ak contentement bu baax la daal di fësal xamle bu baax ginnaaw bi nga xamee justice Sénégal daal nañ ko déglu ndig ni démb comme nu mu yàkkamte woon bëgg loolu di procès bu baax a baax ngir kat jàmbaarloo ki nga xam ni moo di njiitalu Pastef bi la di Ousmane Sonko donte moom sax njiitalu Pastef bi la Ousmane Sonko teewul benn yoon ci bu Dakaaru Ndiaye gi la ndig ni démb ngir kat bu baax a baax jotul moytul benn yoon di convocation bi firnde ni war naa mën a wuyu ci loxoy buur loolee sax tax na ci avocat am daal dina xamle bu baax ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko jotul yoon li kayit bi wane ne naa dax wuyu ji foofee ca tribunal waaye nag moom ki nga xam ni moo di Adji Sarr l'enfant tribul l'enfant bi nga xam ne saa su ne dañuy gis ne ay taxaw démonstration comme ni ñu koy gisee ak sinap bu am doole bi nga xam ni sol rouge def ko bu baax a baax ni ngi di démb foofee tey mu nekk ak mbégteem ci moom bu baax a baax loolee sax li ñëw ki nga xam ni moo di Doudou Ka moom Doudou Ka lu lépp loo xam ni ak avion yi daw fii ci Sénégal muy transport aérien du Sénégal moom nag Durka léegi ni li nga xam ni moo di dimaas ba jàpp guddi dimaas ba jàpp di altine mun nañ ne foofee ca Ziguinchor dañ daal di song li nga xam ni moo di ab këram mu nekk mbir nga xam ni saa su ne dañ koy gis ak lenn ci manifestation yi bu amee lenn ci manifestant yi dañuy song ci lenn kër autorité yi loolee sax tax na moom Durka di am cri de cœur métti lu bu baax a baax li nga xam ni saa ne dañ koy gis ci mim di Sénégal jëfin yi ñaaw yi nga xam ni a bi nga xam ni song nañ ko këram foofee fi nga xam ni moo di parti publication bi di yor yor nekk ab journaliste foofee ci fi nga ba jamono gu ñu waxee ak yéen daal dañ ko jàpp tekk li nga xam moo di garde à vue li waral li ni mel du leen lu dul lañ koy toppee usurpation de fonction maanaam def métier bi nga xam ne du métier am du liggéey liggéeyam maanaam liggéey journaliste bi nga xam ne moom lay faral def foofee rawat na li nga xam ne moo moo di outrage à la mu nekk mbir bi nga xam ni dafa yëkkate ay kàddu jëmale si nga xam ne ñoo di magistrat yi nga xam ne ëtt atte yi fii ci mim réew du Sénégal loolee sax tax na moom mi lay di journaliste bi lay di Serigne Saliou Gueye chroniqueur boobu foofee ci des médias jamono gii mu ngi ci loxo yoon bu baax a baax daanaka mu nekk mbir bi nga xam ne

Sall moom dakaa ñaawlu bu baax a baax daal di xam li bu baax kii di Macky Sall na bàyyi li nga xam ni moom lay nekkee ci mim réew di Sénégal jaay doole bi le mu nekk mbir yi nga xam ni moom Khalifa Sall nakkul na ko bu baax a baax wooyu leen di abonné fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 ndax lu fi xibaar information ñu leen tey ndil salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa